thank you c'est parti encore pour une semaine du lundi au vendredi de 10h à 11h en compagnie donc de nos ci sunu label ci xolu Sénégal yi ci seen émission sunukaay yi cette semaine aussi ñuy waxtaane li nga xamante ne mooy toujours donc l'éducation mais quand même si wàllu école yi surtout que demain inchallah mën na nekk donc la journée internationale de l'éducation ñu nar a jagleel semaine bi yëpp lundi ba vendredi li nga xamante moom mooy communication mu nekk une continuité DJ Lô de la semaine dernière gisoon nañ lépp li nga xamante ne mooy euh, éducation donc ci famille yi ci société bi tey nag dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy euh, école yi école Jules Ferry yi ak école nasa euh, daara yi n'est-ce pas voilà DJ Lô ñu si dalal tey ki nga xamante ne moom mooy monsieur Guèye di secrétaire général de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal ñu nar def donc le tour de la question un tout petit monsieur Guèye euh, nuyu naa la. maa ngi lay fa Fatou. Mhm. di lay euh, féliciter. di lay encourager aussi. Merci. pour une euh, si importante émission. merci Didier Lou également maa ngi nuyu. <laughs> di koy féliciter di féliciter également télévision bi. Mhm. ak responsable yi. merci beaucoup monsieur Guèye Didier Lou. merci beaucoup Fatou. di remercier invité bi monsieur Guèye. di ko nuyu bu baax baax ci disponibilité bi parce que à chaque fois je vois à chaque fois boo ko woyee mhm. day bàyyi lépp ñëw teew ci émission bi donc euh, euh, di ko féliciter di ko remercier pour si disponibilité bi di nuyu encore une fois nos fidèles téléspectateurs téléspectatrices sunu label TV en accompagné de votre émission suñu kaay di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen rek fii ci Sénégal partout ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci ñoom rawatina nos frères et sœurs immigrés fàttewu ma leen duma leen musa nag ay sama xarit lañu ay sama coloré lañu di leen remercier bu baax a baax à chaque fois ñu ngi seetaan émission suñu kaay di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ñoom di leen ne ñoom gàcce ngaalaama fu ñu teg seen tànk foofu la dóor waar rek <laughs> ñëw Sénégal daan seen daan seen doole bitim réew ñëw Sénégal samp seen entreprise comme ñëpp. jàmm ne ñooñ waaw. Mm. immigré yi ak ñoo ak ñoo am ful <laughs> xam naa leen. non di di jëli tu vas me tuer tu sais des fois les ma naan mais jëlal di jëlu nga koy cas pendant un mois. oui il y aura toujours quelque chose à dire. <laughs> ma leen di naan non bàyyi leen ko mais là je me rends compte que vraiment. Euh, c'est normal waaw voilà kaa nga quoi <laughs> tey nuyoo mbër yi nga jël quoi xaabaabal xëccam. daa bëri nuyoo bi daa bëri. short laa dem short mais yow tu as pris 5 euh, pour oui parce su ma laalee bitim réew moom Euh, kuy message yi may jot ak euh, appel yi may jot si mm-hmm. émission jàlle man xam naa donc euh, duñu leen fàtte voilà donc on te l'accorde di bu baax a baax waa Jawle xam naa ni xam département boobu noonu mm-hmm. mais ñu leen di jaajëfal bu baax baax suñu réalisateur bi tey dafa yeewu nag. Euh, naanul café non naanul café jox ko café <laughs> jox ko café nag na ko jox ko kafe nag voilà mhm. donc di nuyu waa jawle comme je le disais euh, ñoom ñi nga xam te ne aussi nee nañ ñu ngi ñuy suivre et plus particulièrement monsieur Kiber Ba nga xam ne nee na suñu euh, fans numéro un la au niveau du département donc de Gandiaye ñu ñuy suivre foofu et d'ailleurs nee na dina def euh, kéemtalaay kàttanam ba nga xam ne réseau câble bi foofu dina lijjanti ba xam. bu am sunu label. dafa leer <laughs> parce que moom ci réseaux sociaux yi lañ doon suivre. donc euh, monsieur Guèye. balaa ñuy euh, gën a dugg ci li nga xam te ne mooy le vif du sujet éducation bi nga xam ne quand même c'est un cas mm-hmm. parmi les cas au Sénégal <laughs> voilà Didier Lou tu m'amènes un coup de cœur un coup de gueule oui <clears throat> oui effectivement xam nga euh, euh, éducation la ñu nekk mm-hmm. mooy thème bi et mm-hmm. c'est très important waxoon naa waxoon naa la ko demb semaine bale passé chaque jour qu'on dort qu'on se réveille tu vois des nouveaux dossiers da ngay gis loo xam ne da lay naqari mais mënoo ci dara je ne sais pas pourquoi les sénégalais sont comme ça mais habitude la ci ñooñu. habitude la ñooñu waa ji dafa taal motom jógee fu mu fu mu fu mu dëkk de. Mhm. ñëw mhm. ba ci fenêtre waa ji. Mhm. mu ngi tëdd si néeg bi di nelaw de fajar yooyu noonu. di gaare ci fenêtre am di accélérer. scooter am <laughs> déggoo ma de. ci fenêtre daal foofu la gaaree. xam naa secteur fu mu war a gaaree de secteur boobu la war a gaaree mais moom. Mhm. elle a préfère il préfère il préfère mu ñëw gaaree ci. fenêtre <coughs> waa ji di accélérer motom waa ji yow ubbi fenêtre mu ne ko saawaay yow li ngay def nii foo ko teg mhm. amal yar waay mhm. naka laa mën a tëddee même bu fekkee ne sa kenn nekku fi mhm. mais waroo ñëw gaare sama fenêtre di accélérer sa moto di yàq sama nelaw xamoo ndax feebar fi eh, am na ku fi feebar fi nekk wala benn troisième âge moo moo fi nekk yow nga di di di di di aalu mel ni borom moto bi borom moto bi di aalu di saaga mel ni moo mel ni <laughs> réalité bi non je ne comprends pas <laughs> waaj bi tamit mer jóg takk parce que pour sol tubéy bi. xam naa xam naa ça prend du temps. Mm. dafa dafa woo du serviette rek mu génn. ay serviette du xeex de. ah mais non dafa mer xam naa xanaa non xam naa moom dafa dafa wóolu boppam voilà. mu génn ah. après man dama tombé juste. Mm. mu génn mais après ma gis réaction bu mu ñëwee. Mm. après j'ai essayé ma intervenir essayer de calmer le jeu. Mm. après par la suite il y a trois quatre personnes ñoo ñëw après ñu calmer waa bi ñu ne ko saa waay yow yaa tooñ nag franchement borom moto bi yaa ko tooñ nag franchement waroo ñëw gaaree si fenêtre buntu fenêtre bi di accélérer moto bi moto bi. mais ban ban cité ban quartier la. Sacré-Cœur fii. non fii Sacré-Cœur fii sérieux mais je pense que ce genre de cas dañ koy am ah, du Sacré-Cœur kese borom moto yi moom vraiment. Mm-hmm. Euh, matin midi soir dañuy tympaniser ñi nga xam te noo nekk si quartier yi ñoom xamuñu heure suba teel xamuñu heure sieste xamuñu guddi. je pense mm-hmm. que ñoom tamit. dinañ leen kaa ñu ñëw mhm. toog fii ñu wax ak ñoom parce que éducation moom on peut dire que si côté boobu noonu mhm. euh, de leur côté dafa dafa des tuuti tout <laughs> surtout que ñoom tamit ils font partie mhm. euh, de la société voilà donc euh, monsieur Guèye comme ni ma wax euh, tey dañuy waxtaanee toujours li nga xam ne mooy éducation mm-hmm. donc ci wàllu njàng mi ak euh, njàngale mi. Mm-hmm. tey nag ñuy xool parce que syndicats yi bëri nañ torop aussi seen kaas bëri na mais dinañ xool avec vous bien sûr qui est mm-hmm. donc le secrétaire général de l'UNAPES Union nationale des parents. Euh, d'élèves et étudiants du Sénégal est-ce que syndicalistes yooyu noonu syndicats yi est-ce que amal nañu njëriñ vraiment donc euh, l'éducation surtout du côté des enfants leur mhm. programme et autres mhm. donc dañuy commencer Didier Lou par déjà tënk li nga xamante ne à votre avis lan mooy syndicat ak lan moo war a nekk rôle am mhm. surtout dans l'éducation voilà Fatou merci beaucoup di dellu aussi si cas bi Didier Lou wax rek. <laughs> day na waar dafay revenir toujours rek ci éducation. parce la personne euh, dafa war a am lu ñuy wax éducation de base mm-hmm. et que aujourd'hui dañuy constater mm-hmm. effectivement que cette jeunesse présente là mm-hmm. mais bruit daf leen neex ko bruit daf leen neex ah <laughs> loolu moom dëgg la alors euh, ci éducation bi toujours ni ñuy euh, yar xale yi di leen jox éducation de base bu bu baax parce que nit ki quand tu te respectes ca veut dire que tu respectes l'autre. C'est vrai. mais je me respecte et les autres, euh, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais. Ça, ça ne fait pas partie d'une bonne éducation. Mmh. Alors, pour revenir à votre question, mmh. d'abord d'abord suñu président national Abdoulaye Fane. Mmh. di nuyu Thierno Ndaw. ah mhm. suñu président département bu Dakar. Mhm. et vraiment tous nos membres. di leen féliciter au passage ci liggéey bi ñuy def. parce que kenn fayuñu. mais on dit que un parent d'élève da nga bokk ci dispositif bi d'ailleurs euh, la partie la plus importante c'est c'est les parents d'élèves exactement alors pour revenir à votre question maintenant le rôle des syndicats bon on sait que syndicat euh, revendication moom mooy euh, moom mooy principal euh, principal rôle alors euh, DICAS pour évoluer parce que quand on fait partie d'une société alors il faut quand même euh, faire tout pour avancer. Mm -hmm. alors syndicats yi ñu ngi casse. Mhm. mais souvent ñun ce qu'on leur reproche. Mhm. au niveau éducationnel. Mhm. Euh, moom mooy bu ñu bu ñu mettre en rade xale yi. parce que chaque heure que l'enfant perd. Euh, dafay répercuter. ci cursus scolaire. maanaam ci ci heure d'apprentissage. alors souvent nag on a ce problème là ak ñoom. parce que on dit que bul téye bul téye dëgg bi. rek nga appuyer ci. waaw parce que les élèves ñoom jàng moo leen fa indi. mais en tant que syndicat boo leen amee lu ngeen di kaas vis-à-vis du gouvernement pour yokk ay salaire wala pour commodité yi ngeen nekk et tout on est d'accord. Mhm. mais quand même il faut savoir relativiser. Mhm. waaw ah, parce que grève dafa bari façon c'est ce que je dis tout le temps mhm. dafa bari façon mhm. euh, euh, euh, président Abdoulaye Wade daan wax da di takk brassard rouge mhm. là dinañ leen gis ñu xam ne ne que a ngi grève bu kontaanu leen n'est-ce pas kontaanu leen mais tëj classe yi dem ñi bi bàyyi xale yi ci tali bi ça peut causer des désagréments waaw ah, donc di leen lancer appel toujours rek ne forme grève bëri na mais quand jël leen toujours en compte li ñu leen dénk muy xale yi faites tout pour que au moins seen bopp yi am lu am dara moo mën leen jëriñ dafay bokk ci respect aussi mais concernant la grève bi ngay wax moi je constate euh, bi ma nekkoon le troisième je me rappelle si li avait la grève si professeurs yi Eh, ñeneen nit ñi dañuy grève ñeneen nit ñi duñu du ñu grève boo leen laajte ñu ne non seen syndicat. Mhm. léegi man li mu bëgg a xam mooy yeneen ñiy def grève. Mhm. ñoom dañoo dañoo lan lan mooy différence bi xanaa dañoo am dañoo dañoo am seen salaire dañ ko yokk wala ñii bañ a ñiy grève ñoom yokkuñu seen salaire wala maanaam pourquoi à tout le temps quand ñii dañuy ñii duñu grève respecté syndicat surtout que dañoo bëri nag xam nga Fatou mu ngi koy wax sànq ne que mm-hmm. y a de syndicats mm-hmm. comme ni mu amee parti politique yu bëri yi ay mm-hmm. quatre cent et quelques syndicats ngay gis alors ku ci nekk maintenant ak sa euh, ni ngay doxale d'accord mais normalement normalement waroon nañu am benn benn coordination bu nga xam ne vraiment bu amee mot d'ordre wala bu bu war a amee mot d'ordre mhm. ñu waxtaanee ko mhm. pour harmoniser li nuy def mhm. effectivement léeg-léeg syndicat bi day ne du damay grève beneen syndicat bi ne duma ma grève ce qui fait que euh, ce qu'on appelle ñun l'éducation de qualité ah dafay daal di sooxe dafay daal di sooxe parce que boo jëlee exemple par exemple les écoles privées en général ils ne vont elles ne vont pas en grève alors école publique yi souvent foofu lay euh, kii bi di gën a accentuer grève bi alors mhm. du coup dafay am dysfonctionnement mhm. ci temps temps d'apprentissage mhm. alors donc euh, c'est pas tellement ça là. Mm-hmm. c'est pas tellement peut-être une forme aussi de discrimination par rapport aux mais élèves. parce que ñi ils ont la possibilité d'aller à mm-hmm. pas la parce que dañ koo mm-hmm. euh, leen di jàngal ils sont pas disponibles. parce que ñu ngi dem école ñi jànguñu mais eh, dem école programme de de de ñoom avancé ñu ñi ñi ñi nga xamante eh, ñu respecté donc seen programme donc. surtout que dañu ne boo nekkee par exemple classe d'examen. dafa am heure nombre d'heures. nombre d'heures nga xam da ko war a jàng pour euh, prétendre à l'examen. Mhm. nombre d'heures boobu boo ko mëtlewul. léeg-léeg dañuy bàyyi muy jàll nii mais normalement tu dois même pas aller ah, faire ton examen. sinon après dañuy ñëw sonal élèves yi ak ay cours de rattrapage. ay polycope yu dul jeex ñëw jox leen et tout. voilà yu kenn xamul des fois même euh, actuellement on remarque euh, je sais pas si c'est normal ou pas tu me le diras en tant que mhm. parent d'élève mhm. dañuy gis sommes contre ce fait. fait là mhm. dénoncé nanu ko mhm. vraiment partout mhm. où suñu voix euh, di fa porter parce que euh, l'élève doit être devant son professeur parce que pédagogie geste mi ngi ci n'est-ce pas euh, comportement mi ngi ci euh, faire valoir mi ngi ci du coup soo may jàngal moi je préfère nga nekk devant moi. Mhm. donc polycopie c'est pas évident parce que am na ñu nga xam ne seen parents yi mun nañ leen jox euh, deux cent trois cent francs. Mhm. mais y en a d'autres nga xam ne mënuñu jënd polycope bi. Mhm. du coup day am dysfonctionnement. day am disparité. et c'est pas normal. parce que dañuy wax l'école pour tous. et surtout que des fois aussi dañuy gis euh, si rentrée des classes je sais parents yi di ngeen suivre loolu euh, ci inscription bi des fois am na ñu la koy détaillé ne la lii mooy inscription bi lii mooy frais euh, comme ni nga ko waxee pour mhm. polycopie pour toute l'année lii accessible mais après da nga yow le parent tu te rends compte que après plus mhm. ngay avancer ci dans dans l'année scolaire xale bi day ñëw ne la euh, nee nañ ma indi nangam pour polycop nangam alors que toi tu es censé avoir payé tout ça ci ci ci ci ci inscription bi mhm. oui gis nga même même pour les inscriptions mhm. euh, dañu euh, l'État a fait en sorte mhm. de quantifier bu dee école primaire mënu leen passer trois mille cinq dans le public bu dee secondaire bi mënu leen passer dix mille francs alors souvent nag gars ñi dañuy gis ay euh, dañ koy contourner mhm. parce qu'ils disent que voilà comité de gestion bi décider na lii wala décider na lale mhm. mais moi je dis que un état doit être fort mhm. un état doit être fort pour décider benn affaire par décret mais tout le monde doit hein, conformer souvent dysfonctionnement yooyu dafay am ñun au niveau de l'UNAPES duñ koy xeex duñ koy xeex chaque année dañ koy xeex mm-hmm. parce que léeg-léeg surtout au niveau des lycées mm-hmm. surtout au niveau des parce que dañuy leen ne dix mille francs bi mm-hmm. euh, trois deux mille cinq cent bi blouse la yeneen euh, yeneen deux mille cinq cent yi dinañ ko tas daal ba nga xam ne dix mille francs bi dina mët loolu mais souvent dañ la naan non prof éducation physique bi nee na tenue yi nii tenue yi na lee li euh, ñu koy tuddee ci encore euh, fourniture yi nii nii bon ba yokk ko quoi. Mhm. bon double e deux par exemple ñu ne. Euh, dañuy cotiser parce que on a un décès ici parce que on doit réfectionner les toilettes mm alors que yooyu yëpp c'est pris en compte mm -hmm. euh, souvent nag l'État bon dafay dafay retarder mhm. n'est-ce pas ci yenn mhm. investissement yi waaw ah, dafay retardé ci yenn investissement yi su ko defee maintenant les mhm. comités de gestion mhm. euh, ak corps enseignants yi si li ñuy profiter pour di spolier laa koy tuddee le mot n'est pas trop fort <laughs> di spolier parents d'élèves <laughs> d' accord mais toujours est-il que day baax aussi je pense di jëlu ñu mën a xam. Mhm. parce que boo nee euh, union nationale des parents d' élèves et étudiants du Sénégal donc mhm. c' euh, surtout le territoire. c' euh, tout le territoire sénégalais voilà. maintenant aujourd'hui est ce que am ngeen tamit des parents d' élèves qui sont dans le privé. parce que euh, mhm. je ne sais pas s'il y a des parents bon. qui font partie de cette euh, de cette union ou bien. yu bokk ci privé bi. Mm effectivement di adhérer. Mm si UNAPES. Mm bon mais on avoue que on n'est pas très très très mhm. euh, euh, très très branché mhm. au niveau des écoles privées. privées. Ah, parce que souvent il y a moins de problèmes mhm. au niveau des des écoles privées. bon c'est vrai que entre guillemets man mi personnellement amoon naa benn cas bu yàggul ni au niveau de du collège Sacré-Cœur temps yële passé parce que dafa amoon benn benn problème bon ça s'est passé hors de l'école mais finalement l'école l'a pris ba bëgg a euh, dàq xale bi n'est-ce pas alors que les textes disent que l'élève euh, quand il est en pleine année scolaire waruloo ko exclure donc on mhm. s'est battu au niveau de l'UNAPES mhm. ak parents d'élèves bi ci boppam mhm. ba réintégrer euh, xale bi ci biir ci voilà ça c'est un rôle que l'UNAPES a joué d'accord mhm. léegi toujours est-il que si côté boobu noonu tamit mhm. tey xale bi bu jëlee sàkkam di dem di jàngi école euh, fan la responsabilité euh, école bi di engagé wu ba à quel moment aussi mhm. parce que il faudrait parents yi aussi nañ bëgg a xam xam nga il est que bon même le travailleur à l'heure dite c'est-à-dire boo waree jël Euh, fonction bon boo waree commencer sa liggéey. 8h30 disons. nga génn sa kër à 7h30. tous ces 30 minutes là sont pris en compte. trajectoire bi ba nga egsi. ba nga egsi ba egsi ce bureau la responsabilité et la et la responsabilité du euh, de la société est engagée. d'accord ba heure bi ngay wàcc. 30 minutes après. ou une heure de temps après. yaa ngi ci biir mhm. heure bi. ci biir heure bi au delà maintenant. Mhm. tu n'es euh, un désengagement. Mhm. du coup donc euh, élève bi moom il est di que. bu ñëwee ba dugg ci enceinte école. l'école est responsable. d'accord. su heure wàcc jotee aussi boo génnee hors de l'école l'école dégage ses responsabilités mais tant que l'élève est au sein de l'établissement c'est l'établissement qui pendant la récréation pendant la récréation. il est normalement il est interdit de sortir. sortir oui. ah il est mm-hmm. interdit de sortir. Mm-hmm. mais bon euh, comme contexte yi souvent. Mm-hmm. ñooy def que li ñuy soxla yëpp. du nekk ci biir école bi. bon dañuy génn ci environnement bi noonu. n'est-ce pas mais normalement à quelques mètres ou à quelques trucs l'école est doit être regardant. doit être regardant. Mm -hmm. d'accord donc toujours est-il que seen responsabilité est engagée. Mm -hmm. euh, donc toujours euh, Didier Lou day baax aussi euh, monsieur Guèye nga wax ñu yow en tant que <coughs> parent d'élève naka nga gisee ni nga xamante ne moom mooy donc le système éducatif actuellement donc au Sénégal. bon le système éducatif depuis vous avez tantôt parlé de l'école de Jules Ferry. Ouais. <laughs> donc on a été colonisé. Et on nous a imposé la langue française, uh-huh. on nous a imposé à la limite même euh, ce que les Français font en France, nous euh, euh, copier au Sénégal. Alors que uh-huh. c'est pas les mêmes réalités. Uh-huh. nit ki boo ko bëggee jàngal dëgg dëgg dëgg. da nga koy fekk si si culture mu gën a comprendre. mu dem mais boo jëlee beneen culture bëgg ko ko inculquer. c'est pas évident. C'est pas évident. Mm-hmm. Euh, on a toujours dit, mmh. l'État était même d'accord mm-hmm. depuis 1994 mmh. de nous mm-hmm. organiser on, ce qu'on appelait les, des assises nationales, pour dire qu'on doit repenser <laughs> l'école. Euh, moment bobu, tout le monde était d'accord que li ñu war jàngal xale yi. dafa war a obéir à leur culture. maanaam bon olof bi. joolaa bi. séeréer bi intégré ko. ci li ñuy jàngalee xale yi surtout ci début bi. c'est-à-dire euh, ñëw primaire. ñu leen di jàngal en même temps si seen langue ñoom. bon pour compréhension ba Sénégal mhm. créé. Mhm. ministère de l'alphabétisation. Mhm. donc ça allait dans ce sens-là enracinement quoi. mais depuis dafay dafay soox. on a testé. gis mhm. nañu ne que effectivement xale bi boo ko jàngalee ci làngam. Mhm. si lay gën a gaaw a comprendre. que mhm. nga jàngal ko ci beneen langue. boo xam te ne dafa nekk. alors donc ñun au niveau de l'UNAPES. on dit que nanu enraciner xale yi. ci seen culture. ne leen ne leen enraciner. di leen jàngal à partir de leur langue. surtout à la base. bon boobu ba léegi. Euh, conclusion yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci tiroir yi. Mhm. kañ leen koy génne. Mhm. je pense qu'il est temps. Mhm. Euh, ñu ngi ñëw ci comme vous avez dit journée de l'éducation suba. je pense que on va encore réfléchir. ci ci ci ci sens boobu. parce que il il ne sert à rien d'inculquer nit ki lu mu lu mu xamul lu mu dul dund lu mu lu mu cosaanoowul. Ah, donc il est question qu'on revienne à, à, à, à la base. ñoom Charles de Gaulle ñoom Jules Ferry <laughs> passé nañu nag passé nañu et puis et puis dañu aussi fu nga xam ne euh, nous sommes un pays ñii ngi naan en voie de développement ñii ngi naan en lii ñii ngi naan en ligne mais ba léegi décollé guñu décollé ñu daal te li ko li ko li ko téye jëlaguñu départ bi <laughs> xaw ma jël nañ départ xaw ma jëlaguñu départ mais c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile aujourd'hui da ngay dem même à l'université euh, Euh, étudiant làkkal le français mais. Euh, tu as envie de vomir ah <laughs> tu as gis ci euh, ci télé bi. des fois nekk en bref ñu ñu tendre le micro. voilà ne étudiant mooy wax ni yow tu te demandes est-ce que. voilà parce que. Mhm. Ah. wul. lu mu bëgg a génne ci bopp bi. effectivement am. Euh, dysfonctionnement. Mhm. parce que nit ki li nga ni nga koy sentiree. Mhm. ni nga ko ni nga ko ni nga ko xamee. Mhm. bu dee noonu nga koy génnee si lay gën a yomb. que ngay dem uti. ay mots ay mots di di taqale comme ni xale yi di wax. comme def ni di jëlu di def. voilà voilà voilà déggul olof day dem réfléchir fii. <laughs> parce que boo waxee xale bi bu nga xam ne olof rek lay wax këram. nga ne ko benn. mais moo gën nga ne ko boo ko waxee benn si lay gën a gaaw a comprendre. waaw parce que moom seen biir kër làkku fa français. benn lay olof lañ koy wax. Mhm. Ah, jox ma benn benn benn casserole wala mhm. jox ma benn bic wala jox ma benn feuille. Mhm. si lay gën a gaaw a comprendre nga ne donne-moi une feuille. su doon xale bi lañ ko koy làkk ci biir kër gi. il grandit avec olof leen koy làkk. donc soo koy jàngal. jàngal ko ci kàllaama boobu. bon nga juguler ñaari. parce que actuellement mënuñu bàyyi français après na ko mais man li ma bëgg man li ma bëgg a man li ma bëgg a xam a mhm. mooy est-ce que est-ce que nous étions mhm. li nga wax même si euh, tel est le mais est-ce qu'il n'est temps aussi de réorganiser ñun xoolaat suñu biir xoolaat suñu éducation jël suñu propre responsabilité jàngale suñu suñu xale yi euh, bañ a dépendre si occidentaux yi. mais mais ça c'est évident mhm. euh, parce que nit ki. mais mais mënuloo màgg ci benn benn benn société benn cocon. Hmm? Uh-huh. Euh, tey bu Sénégal tàngee. Uh-huh. mais mais France mi ngi ci seddaay. donc même xale bi bu yeewu sax. Uh-huh. ak ni euh, xale français bi di yeewoo sax bokkul. <laughs> li muy nekkee ak li français bi di <laughs> nekkee sax bokkul. rue yi ñuy jaar li ñuy gis li ñuy xam. bokkul bokkul. Mm-hmm. Mm-hmm. donc il faut qu'on revienne à nos réalités. Mm-hmm. ça c'est deuxièmement euh, qui dit développement. tu te développes à partir de ce que tu as. aujourd'hui Sénégal ak nu mu nu mu nu mu euh, nu mu nu mu nekkee. yi ils n'ont plus besoin de. de d'aller jàng jàng ba seen bopp yi fees. Mhm. on a besoin de technicien on a besoin mhm. d'ingénieurs mhm. sur des euh, métier euh, bien précis. parce foofu la ñu toll Chine. wala Japon boo gisee ñu développé. parce que dañu euh, dañu quantifier seen seen territoire. xool lan moo koy suqale. ben ñu orienter éducation bi foofu. foofu la Sénégal toll foofu la Afrique toll. mais tant que ñu ngi permettre gars yi di ñuy imposer. ba pare di jël suñuy ressources di yóbbu di transformer di indi. di ñu defal publicité. on on dépendra toujours. toujours de d' accord on va toujours dépendre. il faudrait que ñu indépendant tuuti ci. Ah, euh, <laughs> ci côté qui indépendant. <laughs> waaye depuis 1960 on est indépendant mais. en tout cas Ndogo <laughs> en tout cas. d' donc toujours monsieur Guèye euh, ñu fàttali leen rek ñu ngi ci euh, li nga xamante ne mooy euh, éducation muy njàng meeg njàngale mi donc tey ñuy recevoir monsieur Guèye di secrétaire général de l' union nationale des parents d' élèves et étudiants du Sénégal donc monsieur Guèye aussi bëggoon nañu xam tey parce qu'on voit souvent école yi dañuy ubbi ci koñ yi. da ngay jékki-jékki rek gis benn école euh, même si des fois euh, infrastructure yi du demee noonu euh, cadre bi du demee noonu vous en tant que donc union des des parents naka ngeen di jàngatee loolu ak est-ce que am ngeen votre mot à dire sur ça ouais, et... tout le temps ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu mhm. surtout aujourd'hui le constat est fait Euh, les formation mhm. les formations da ngay da ngay jékki-jékki comme vous mhm. ñëw sacré mhm. gis benn benn école de formation. donc licence yi naka leen koy lijjantee ba. ubbi école yi problème la. bon il ministère. qui est en train de faire benn benn comment dire benn enquête. pour effectivement xool yan école lu ñu ah. agréé mhm. correctement ak yan école ñoom ñoo nekk euh, di di joxe noonu sans di joxe noonu kii mhm. te te agréé la ah, parce que aussi mhm. euh, en général ñooñu dañuy dugg ci école yooyu ba génn euh, diplôme bu ñuy am du leen jëriñ dara day nekk diplôme bu nga xam ni euh, kii ko n'est luñu ko donc problème yooyu am na fii aussi ok voilà après ñuy jàpp ne maa ngi ak sama diplôme jàng naa ba am sama diplôme mais j'arrive pas à avoir euh, euh, du travail. Non, aussi dafay baax ñu xam seen diplôme yi. voilà mais ndax c'est agréé c'est pas agréé parce que am na école yoo xam te ne sont pas effectivement parents d'élèves bala ngay euh, inscrire sa doom ci benn kii mais seetal. Mhm. est-ce que l'école est agréée est-ce que les diplômes yi ñuy délivrer. Mhm. l'état bi dina ko nangu pour éventuellement insérer. waaw mais est-ce que est-ce C'est la faute, la faute à l'État. C'est l'État qui fois... l'autorisation. Même dans les écoles primaires et autres, parce que des non. fois, nous avons ben coin. Voilà. Euh, nous avons école. Tout à fait. Mais moi, école bobu nono, da ngay gis né amul cours de récréation. N'est-ce pas? Amul euh, par exemple espace bo ne xale yi mun nañ fa gaforer et tout. Ben kër lañuy jël rek. Voilà. Dal di dal ko aménager. Hmm. est ce que loolu noonu xale bi mën na ci épanouir. non non non non ça c' est sûr c' est sûr c' est certain. Mm-hmm. xale bi mënul am épanouissement. Mm-hmm. xale bi mënul am épanouissement. Mm-hmm. parce que yenn cadre yi. ça ne permet pas la réflexion. mais euh, borom école bi borom école bu toppeewul yoon bi maanaam ay papiers yu war a lijjanti pour pour pour créer école am. Mhm. mais bu moom mu géggee rek dem benn immeuble wala benn jël benn appartement def ko école sa mhm. autant mu jaar euh, mu jaar ci papiers yu normal yu bu egg si ba ci état. lijjanti mhm. ay papiers moom mu ubbi école rek jël ay élèves dina jàngal mais loolu c'est pas la de l'état parce que l'état n'est pas l'état n'est pas au courant de doit être au, courant. courant. Parce qu'un État, tu es censé mmh. savoir tout, comprendre tout. Mais l'État est là pour ça. Pour ça. Mais mon, euh, moo mon, mon, mais mon, mon, mon, celui qui n'a pas fait l'État a demandé. boo tu tabax tabac école, maanaam boo bëgg a école, am na yoon bii ngay jaar, yoon bi ngay jaar ba nga egg ci État ñu jox la ay papiers yu leer nañ nga signé ko après nga samp école. Mais loolu boo jaarul boo boo deful loolu nga créer rek samp sa école même. L'État n'est pas au courant de ça mais. ça c'est c'est boo jëlee kayit non seulement l'État doit être au courant mm-hmm. des écoles yu nga xam ne nekkuñu mm-hmm. nekkuñu en règle ñu euh, sanctionner leen mm-hmm. mais aussi le parent avant d'inscrire ton école euh, ton ton élève dans une école mais il faut que nga xool est-ce que normal na est-ce que est-ce que est-ce investissement yu mag la les parents waaw mais d'accord il y a certains parents c'est pas tous les parents il certains parents am na élèves yoo xamante ni ñoo jël seen propre responsabilité dem inscrire école am na parents yoo xamante ni voilà so eh, donc voilà ñoom dugal seen doom eh, école rek ñu jàng ba am ay diplôme ba ay master mais ñoom seen parents yi jànguñu am na ñoo xam procédure bi mooy élèves yi moo ko def mais pas parents donc am na parents yoo xamante ni pas le temps est connue de par l'État ou bien voilà. am na parents yooyu mënuñu mënuñu loolu mais école moo jël seen responsabilité def ko. c'est leur devoir. c'est leur devoir d'enquêter pour savoir. le parent qui n'a pas le temps d'enquêter le parent qui n'a pas école bi nekkul daal mais souvent da ngay gis même publicité. publicité ah. ci télé bi. ñu ne oui école telle wax wax wax wax wax wax mais doit être regardant. Mhm. n'est-ce pas parce que euh, am na corps yu nga xam ne. c'est des direction wala c'est des kii nga xam ni loolu mooy seen mooy seen rôle. Mm-hmm. veiller à ce que ku ubbi école ñu xam ci yan condition nga ko ubbee. Mm-hmm. Mm-hmm. kuy joxe cours ñu xool xam yan UV ngay joxe. et cetera des directions yu nga xam ni loolu rek rek mooy seen métier. mooy seen métier surtout surtout quand école yi ci ay communes la ñuy ubbi. tu vois. <laughs> donc collectivité territoriale yi ñu ngi fii. quand même boo gisee école di fay publicité di fay kii voilà donc war nga saytu ba xam école bi muy primaire bi muy euh, beneen bi euh, école de formation. Euh, ban école la fu dafa mel ni aujourd'hui <coughs> dafa mel ni aujourd'hui ministère du commerce. Mm-hmm. nu mu ne dafay contrôler prix. Mm-hmm. il doit avoir des agents. Mm-hmm. yu nga xam ne tout le temps ñu ngi sillonné. di dugg ci boutique di contrôler. mais c'est pas le cas non mais moi je ne comprends pas moi je ne pas comprendre une école créer sa école jël recruter di leen jàngal ba am diplôme après à la fin ñu ne di ce diplôme là n'est pas reconnu yi di fay chaque fin du mois ñu lay fay ba ay at at at at nga jot sa diplôme nga bëgg déposer entreprise ñu ne non sa diplôme bi n'est pas reconnu par alors que ci école nga donc raison c'est la raison c'est la raison pour laquelle ñuy cas li nga xamante ne mooy éducation aussi pour yeewaale nit ñi tu sais que même sooy ubbi école privée mhm. un euh, tu déclarer mhm. parce que il y a des impôts qui suivent mhm. d'accord mais ñooñu naka la jaar ba ba ba ba am yooyu yëpp soit l'État le sait mu gëmm wala boog euh, l' entrepreneur bi créé école bi. Mhm. si li ma ko mu dee tuddee. Mhm. parce que chef d' entreprise. Mhm. fan ngay jaar ba ba ba di def même un an. sans pour autant sans pour autant que ñu interpellé la. ça aussi voilà. c'est un cas. Hein? c'est un cas c'est un très grand cas moo tax ñu kaa ko fii voilà pour trouver une solution à ça parce que y a beaucoup d'élèves wala euh, ñoo xam te ne pare nañu jàng ils sont dans ce cas là mhm. euh, comme quoi que leur diplôme n'est pas valable alors que tu as perdu peut-être euh. quatre ans de ta de ta vie euh, mënuloo am liggéey aussi parce mhm. que ce diplôme kenn reconnaître ko surtout que ici on met pas en valeur les compétences mais plutôt mhm. les, les diplômes yeah. comme à la française n'est-ce pas est-ce qu'il n'est pas temps qu'on passe aussi à l'américaine moom la ñuy ñëw traité après après une de TV vous propose la location de matériel audiovisuel dernière génération. Caméra, écran géant, travelling, jeu de lumière. Vous êtes producteur de contenu, annonceur, découvrez notre sélection d'accessoires d'équipements en passant par la régie, la post-production et la diffusion sur nos chaînes. Nous vous proposons également la location de studios d'enregistrement, de salles de tournage, un studio de doublage numérique 32 pistes et un accompagnement pour tous vos événements.

commercial arobase alabel tv point com ñu leen di xaar pour seen page publicitaire et bien sûr euh, pour venir accompagner donc euh, projet sunu label TV ñu fàttali leen yéen a ngi donc seen émission sunu kaay yi tey ñuy waxtaane li nga xam ne toujours mooy éducation et durant toute la semaine donc njàng meeg njàngale mi ñu ciy dalal donc euh, monsieur Guèye di secrétaire général de l'UNAPES ñu doon waxtaanee nag avant ñu dugg page publicitaire mooy li nga xam te ne mooy diplôme Euh, ñu gis ne nag ñu ci bëri am nañ ay diplômes yoo xam te ne sont pas agréés par l'État faute donc euh, d'agrément de l'école école yi nga ubbi euh, n'importe comment dans les communes muy école primaire yi école privée yi et des fois aussi le milieu n'est pas adéquat mm. les infrastructures aussi ne suivent pas pour l'épanouissement de de l'enfant mm. léegi nag toujours est-il que tout à l'heure on parlait de compétences mm. voilà ñu gis ne par exemple dans le système français si on peut le dire comme ça ñoom boo demee ba troisième. Mhm. déjà tu as un projet en mhm. main. tu commences à dire lii laa bëgg nekk. Mhm. on t'amène en entreprise on t'amène en tout cas par rapport ak ses choix. on voit que loolu existé wul donc euh, dans le programme sénégalais bi ñu ko mënee wax loolu. yéen en tant que parent d'élève lan ngeen mën a def vraiment dans ce dans, dans ce sens là. ba ñu déglu leen que vraiment qu'on mette en avant les compétences des enfants. et ñu leen di déglu aussi si seen bëgg-bëgg bañ leen a imposer. Mm-hmm. xam nga xam nga comme on dit éducation c'est un tout. Mm-hmm. Euh, gis nga lu tax ñu ne jardin d'enfants. Mm-hmm. jardin d'enfants c'est pour di xool xale yi. Euh, di leen repérer. ci compétence déjà. c'est pourquoi dañuy créer ay jeu au niveau des jardins dañuy créer ay. Euh, ay chansons mm-hmm. et cetera mais tout ça c'est pour mm-hmm. repérer mm-hmm. xale bi ci ban euh, fànn la gën a la gën a xarañ su à partir de là nga commencé que gunge gunge muy dem ndànk bon euh, système français bi wala système américain bi wala système chinois bi euh, ñoom à partir de la classe de troisième ñu xam ne au moins xale bi commencé na am une bonne compréhension de la vie mhm. alors ñu commencé ko orienter mhm. si tel métier wala tel kii wala tel kii mhm. mais au Sénégal c'est un tout day gëm dem terminal ak nga dem université duñ lay duñ lay du lay duñ lay rek. <laughs> buuree rek ngay dem. duñ lay buuree rek. léegi nag boo demee ba ba génn. war a dem war a war a am fonction par exemple d' avocat ou de je sais quoi. tu es obligé de réapprendre. parce que c' est pas les mêmes réalités. ok alors que Sénégal toll na fu nga xam ni dañu war a commencer dès euh, la classe de troisième. mais pour di orienter. xale yi si li nga xam ne mën nañ ko exploiter. Mhm. au niveau du Sénégal. surtout mhm. côté ingénieur yi. Mhm. bon heureusement que l'État aujourd'hui mi ngi dem dans ce sens-là di di créer ay université ñu nga xam ni dañuy spécialisé wu. Mhm. là aussi nous en tant que parents duñu koy euh, duñu koy rafetlu. rafetlu mhm. mhm. d' accord ñu gis ne nag des fois parents yi euh, comme ni nga ko waxee le jardin d' enfant hein, c' est fait pour euh, ngay xool xale bi di ko bàyyi xel. mais même à la maison xale yi dañuy faux mais parents yi ils ne ils sont pas des fois regardants ci li nga xamante ne. Euh, seen doom yi foofu la xelam gën a màccee au contraire ils choisissent mm-hmm. Mm-hmm. pour leurs enfants tey jii ni par exemple en classe de troisième mm-hmm. boo ñëwee par exemple ne sa sa papa wala sa yaay euh, man dama bëgg a dem nekki par exemple coiffeuse dootoo ko defati nest <laughs> loolu kaa la. parce que dañ ko dañ ko dañ ko dañ la naan man fayaluma la ba fi pour nga may wax ay waxu école de coiffure et autres alors wala couture. Euh, ay personnes siy jëlee. wala ñu ne la amoo ambition. vous avez Fatou. beaucoup de personnalités aujourd'hui mhm. euh, seen cursus. Mhm. boo ko suivre. Mhm. bon au comme ça ma jël euh, kaw Youssou Ndour par exemple. Youssou Ndour on l'a inscrit à l'école mais bu dem ba CM2 ben il se sentait pas way la bëgg mais ses parent dañ ko ne mais du ci dal du ci dal léegi day obligé di làqatu di dem di di way mais école bi ben bu ñëwee il est là il figure et pourtant mais fële na. Mhm. ci ci ci ci ci ci li bëgg. ci bëgg bëgg mais après retourné na dem jàngi de. ah voilà boo boo boo boo kii ba nga li la passionné. Uh-huh. parce que loolu mooy dundal nit en fait. d'accord nga def li nga xam ne moom moo la passionné. Uh-huh. ñu ñu gunge la ci. Uh-huh. Euh, européens yeeg américains asiatiques foofu lañ ñu rawee ñu. un parent ne peut pas. de de force mu ne sama doom dafay nekk. Euh, médecin wala mm-hmm. dafay non c'est pas évident mm-hmm. c'est pas évident parce que mm-hmm. quotient intellectuel yi bokkuñu bëgg-bëgg yow yow xoolal li passionné sa doom nga jàppale ko ci loolu. maintenant jàng moom du wees. jàng mais est comme on dit léegi nag dangay ngay bàyyi ñu dalal euh, la oreille moom euh, voilà je pense que moom sa passion c'est su ma waxaatee danaa nu koy ci tuwaay bi baax na. laa bëgg a def taxaw ñu koy nataal. mu ngi fi. mu ngi fi waaw na ko waxal ko sa passion. sa passion oui oui c'est quoi ta passion bonjour. du ma ah. la <laughs> wax dara naa la baal bonjour maa ngi leen di ziar. d'accord c'est pas moi qui demande monsieur Guèye may laajte c'est quoi ta passion. sa passion. man <laughs> ah. yaa ngi ni eh. ci la ma fekk nii. ci la ma fekk nii lii mooy e sama passion. Eh, eh. en même temps bëggoon naa. Euh, réussir ci li nga xam ne moom laa njëkkoon doon suivre muy euh, basket. Mhm. parce que euh, amoon naa ci li moo loo xamante ne dénkaane la. Mhm. te teel nañ ma cee orienté. mais suñu borom mooy dogal moo tax jàng buñ la ko santee rek jàngal parce que xamuloo aussi tamit ëllëg di réussir ci li nga bëgg wala bëgg wala wala wala déet mhm. c'est important mhm. mais ci kaw loolu balaa may développé ma leen bu baax jox leen seen <laughs> euh, gi bu baax euh, di ko ñaanal euh, ziar aussi tamit di jëlu mhm. la Fatou j'espère que li ma dal ci altine tey bi dalu leen yéen <laughs> yàlla na ngeen am jàmm ñun dañuy teel a jóg <laughs> ah mais bon yow c'est pareil c'est que dëkkuwaay moo moo xaw a xaw a wuute rek en même temps xëy na yoon bi yoon yi du benn yow chaque jour yaa ngi si cas yi. li ñuy def dañ daajal benn condamné monsieur Guèye si vous êtes d' euh, euh, accord avec votre accord chaque fois que mu ñëw en retard. Mm-hmm. dafay dugal 1000 francs. ah loo ah, ko wàññi ko après su ko defee kees boobu noonu. maanaam dañuy dem def ci social. <laughs> wàññi ko wàññi ko wàññi ko defal 500 rek. <laughs> social ñu jox ko social daal wala ñu ñu xool naka lañ koy defee daal ba nga xamante ne moom. voilà dootul am problème mu yoon bu xat ak genre yooyu noonu mais bon ak travaux yi. banlieue bi la xaw a lay jóge di la jóge waaw ci banlieue bi lay ah. jóge est-ce que est-ce que dëkkuma presque tukki ah <laughs> est-ce que dëkkuma presque tukki tukki ay côté Sangalkam waaw Sangalkam xaw la xëcc quand dafa mel ni foofu la nag <laughs> donc euh, ma leen di ziar bu baax a baax a baax euh, di euh, déglu boobu baag léegi seen waxtaan mu nekk vraiment loo xamante ne parents yi ñu ngi koy jooy en même temps aussi tamit élèves yaa ngi jooy en même temps professeur yaa ngi jooy en même temps syndicalistes yi ñoo ngi ñaxtu mais tout le temps rek ñoo ngi gis ne vraiment euh, éducation bi ba léegi rek euh, mi ngi euh, sooxe di sooxe gën a sooxe bu baax. Mm. donc ci wàllu école yi ngeen doon wax léegi nii rek ma rejoindre leen ci tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy xew jamono ji parce que li ñuy wax ne école yi nga xamante ne mu ngi ubbi ci li nga xam ne mooy koñ yi. dafay bari parce que boo duggee ci kon presque di fa fekk lu mot cinq écoles dama mën naa jël exemple ci fi ma dëkkee presque mën nga fa fekk cinq écoles yoo xam ne ay école privée la te vraiment euh, bëgg nañu seen seen doom yi jàng mais je pense que loolu nekk loo xamante ne fi mu toll nii euh, réew mi war euh, rafetlu nañ ko ci fi nga xamante ne foofu la éducation war a toll parce que je pense nit ki bu fekkee da ko war a jàngal war nga ko jox éducation bu leer te nit ki vraiment loo nekkul taalibeem je ne pense pas que di nga mën a doon sëriñam donc mm. nag pour jàngal nit il faut nga am yenn performance yoo xam ne dafay nekk ci yow parce que même boo yar nit aussi tamit am na yar bu war a nekk ci yow ba pare mu koy gis di ko copier ci yow rawatina loo xamante ne nag ci ay diplôme lañ koy teg pour nit ki mën a réussir ëllëg donc passé les nit ki tout le temps dañuy gis élève boo xam ne dañ koy jàngal mais day passé sixième cinquième quatrième troisième ba CM2 ñu jàllale ko alors que mën na bañ am sax moyen yu baax te bu demee ci beneen école mën na fa am tolof tolof wala soit ci université wala soit beneen beneen école parce que tout le temps rek ñu ngi koy paaseel parce que école yi xëy na ña fa nekk la ñoo amul diplôme yoo xamante ne diplôme yu màcc la mm-hmm. donc war na nekk loo xamante ne état bi war nañu war nañu ci jàppale en même temps syndicalistes yi parce que tey dañu def journée li nga xam ne moom mooy syndicalistes yi comme ni ñu ko affiché noonu mm-hmm. euh, war nañ ci seen waar parce que très souvent dañuy dégg ñuy wax parce que damay for ci weewu bay en même temps yoo xam ne dañ koy gis euh, syndicalistes yi dañuy ñaxtu saa su ne li nga xamante ne moom mooy ay salaire yi nga xamante ne mooy ay yeneen ak yeneen yoo xam ne pour seen wàllu bopp la ci lu wàllu liggéeykat yi waaye lu ci ëpp rek yu ci euh, wàllu salaire lay dem mais du jëm mukk ci loo xamante ne ci wàllu structure bi lay demee ci wàllu élèves wala soit école bi du noonu lay demee rawatina yi nga xamante ne aussi tamit moom moo moo nekk ci biir euh, ci biir école yi muy nekk xew yoo xamante ne dafay xew donc euh, syndicalistes yi li ma li ma même même démb sax ki ma njëkk a interpellé li ma njëkk wax mooy du ñu duñ ñu ñaxtul ci école bi li nga xam ne moom la ñu war a ñaxtul maanaam lu ci bëri dañ leen di corrompu moom mooy war du ñu mën a yeggale xeex bi à 100 pour ni mu war a deme te vraiment bu ñu ne dañu war a xeexal éducation war nañ fi ñëw pour édu euh, pour pour intérêt éducation ak ndaw ñi parce que dafa nekk loo xamante ne am na importance ci réew mi te wax dëgg neex yàlla ndaw ñi bu ñu leen di jàngal pour ñu dem ëllëg euh, fi nga xamante ne moom mooy euh, doon dara ëllëg ci réew mi war nañ leen jàngal de tele sorte que du ñu am benn benn benn problème bu ëllëgee bu ñu war a génn pour mën a suivre benn branche mm. ko wax en attendant ma bàyyi leen ngeen ñu dellu si léegi. non la nga la nga perdre woon yëpp rafet na ko. <laughs> la nga tardé woon yëpp rafet euh, ah, <laughs> na ko. voilà donc nu may nu may def. xaw dafa doy waar ci réew mi te boobaak léegi ñu ngi ci semaine passée am nga foo génn semaine bi nga dugg ci li nga xam ne mooy wàllu école bi te bu ñu xoolee bu baax a baax a baax doy na waar rek nga mën a wax parce que école yi fi ñu toll nii dañuy jàngale nii dañuy yóbbu doom yi rek xale yi pour ñu sàkku ji xam-xam mm. mais est vraiment ñu ngi ngi am xam-xam ba démb démb démb sama benn euh, élève dama ko laaj ma ne ko yow seen école yi par rapport ak seen système bi mun ne ma sincèrement bu dee mën nga ñu jàppale waxal ñu ñu changer ñu système d'éducation bi mm. système bi nga xamante ne moom moo nekk ci école yi kon élève bu demee ba dem ba wax loolu te élève bu pertinente la <coughs> bu demee ba wax loolu rek c'est parce que am na système bi fu mu toll mm-hmm. donc nag bëgg naa tamit système bi ñu dimbali ñu ci parce que xale yi rek la ñuy jooy waaw xam naa parents d'élèves yi euh, ñoo ngi ci euh, béy seen i waat mm-hmm. mais bëggoon nañ xam aussi balaa euh, beneen question bi mooy daara yi mm-hmm. parce que da nga ne association des parents d'élèves et étudiants du Sénégal est-ce que aussi les daara les parents d'élèves des daara sont pris en compte ñëpp si la ñu ñëpp si la ñu parce que quand tu dis parents d'élèves rek Euh, da ngay. da ngay généraliser globaliser comme vous dites. Mm-hmm. Euh, Ourey merci beaucoup ci reflexion bi. <laughs> merci. Euh, ni nga ko tënkee neex na. Mm-hmm. parce que wax nga syndicat yi. Mm-hmm. li ñu war a taxawee. wax nga également ci budget. parce que aujourd'hui deux mille vingt deux deux mille vingt trois. budget éducation national bu Sénégal. mais boo ko da ngay da kontaan. Ah mais la manière bu ñuy euh, exécuter budget bi. dafay bàyyi en rade. Euh, ce qui est école. parce que école bâtiment la. ban la table banc la. Euh, peinture la. toilette yu baax. tableau yu baax. ak maître yu nga xam ni am na dara si seen bopp. Mhm. bon donc quand tu as un budget de. parce que bu ñu bu ñu jëlee budget euh, éducation nationale. <coughs> après budget forces armées. mais mm-hmm. ñoom ñoo fi ñoom ñoo gën a. réy les budgets pour 2022 2023 mais ni ñu koy exécuter mm-hmm. nous parents d'élèves on dit que suñu doom war na nañu nekk ci environnement bu bu bu baax déjà mm-hmm. euh, am corps pédagogique bu baax am sécurité bu baax n'est-ce pas bu ñu waree euh, jóge seen kër pour ñëw ci école bi aussi wane nu mën a am sécurité bu normal mm-hmm. effectivement bon donc euh, que ça soit l'État. Mm-hmm. que ça soit les parents. que ça mm-hmm. soit les syndicats. bon il faut qu'on revienne. Euh, ci réflexion bu nga xam ne ñun duñu génn Sénégal. ñun ñëpp ay sénégalais lañ. d'accord ku ci nekk yaa ngi casse ce droit. mais nañu prioriser. élève élève bi. nañu prioriser élève bi mm-hmm. parce que c'est euh, comme le président de la République l'a dit mm-hmm. euh, ci ubbite école bi passé mm-hmm. ne que éducation moom mooy aam bu nation bi ça c'est c'est c'est vraiment une philosophie bu nga xam ni dafa dafa dafa dafa dafa dëggu dis-moi dis-moi quel avenir tu di diñuy lee ne ban éducation nga opter donc effectivement cette journée de demain là. Mhm. dafa war a reconvoquer. Mhm. tout ce que mhm. Fatou a dit. tout ce que Didier a dit ak li Ourey wax. ne ñu jël li nga xam ni mooy essentiel. muy une garantie pour le développement du Sénégal. te kooku mënuloo ko am en dehors de l'éducation. de surtout l'éducation de base. di ñaan parents yi aussi. ñuy consacré wu au moins au moins dans les vingt quatre heures ah ñu jël au moins deux heures ou trois heures de temps di koy consacré seen doom yi à la maison ñu ngi def euh, ñu ngi def appel boobu euh, syndicaliste yi euh, xeex nañu ba am li ñuy am yëpp et mun naa wax ne que sur tous les plans kooku l'année dernière l'État def na ko ak ñoom aujourd'hui nag ñoom ñoo am nag pour rendre la monnaie. jàppale <laughs> école bi école bi voilà. <coughs> Didier Lou. <coughs> Euh, <coughs> li mu wax ni dafa am solo trop. concernant le système éduca éducatif au Sénégal. Mais moi, je vois que ni, Fatou, est-ce qu'il n'est pas temps, hein, les jeunes, prendre nos propres responsabilités En quoi faisons Voilà, prendre nos propres responsabilités. si je me si je dis euh, prendre nos propres responsabilités bañ a dépendre ci état mhm. non seulement yow jàng nga du sixième ba troisième ba mhm. terminal am nga sa bac mhm. non seulement am nga vision tu as un objectif dans ta tête am nga vision donc bëgg doon leneen mais attends tu tu vois tu vois que 1960 euh, ba ba ba ba fu ñu toll nii. c'est le même c'est le c'est même problème qui se passe dans les dans les établissements c'est le même éducation ñu nekk. mais attends léegi yow prendre sa propre responsabilité que ni du ma dépendre ci état état euh, mu orienté ma. maanaam waaw mais mu orienté ma bañ ma orienté mais moi je prends ma propre responsabilité mooy que ni. Euh, am naa am naa objectif sama objectif nii la léegi damay bàyyi jàng ma ma ma suivre sama objectif. ma suivre sama passion man man e-, exemple soriwul ma e-, exemple soriwul ma ko sori ci man. Mhm. parce que man xam naa école moom <laughs> école <laughs> <laughs> ma xam ma mhm. dem sa maa ngi waxtaan ak sa benn e, ami yoo xamante yàgg nañu yàgg nañu yàgg nañu gisee ma tu fais quoi maintenant ma ne ma xamoon naa loolu. Mhm. yow boo nekkul ci musique moom yaa ngi si média. parce que voilà dama dama dama voilà dama xamoon sama sama sama objectif. sa bëgg-bëgg sama bëgg-bëgg maanaam dama choisir ni. école moom bu demul bii moom day dem par force bi école bu demul bii di dem mais actuellement léegi on voit que des jeunes topp école rek jàng rek jàng rek jàng rek ba nga xam ni sës nga léegi am nga sa diplôme yëpp yi nga soxla léegi tu veux travailler mu andi problème nag même bu amee liggéey mais da ngay reprendre zéro parce que ay ay ay formation lay commencé ay stage lay commencé yoo xam ne domaine yoo xamante ni euh, musoo ko def boo ko tàmbalee il faut ñu il faut il faut nga commencé waat à zéro il faut nga stage wala ñu débuté la loolu yëpp balaa nga egg loolu est-ce que doo jël sa propre responsabilité xamante ni boo jàng ba à un niveau nga topp li nga bëgg sans aujourd'hui qu'on le veuille ou pas euh, monde bi ci boppam. mais moom moom moo laajte ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. nit bi il faut que ngay entreprendre bon il est vrai que wax nga ko il faut que nga am benn background quand même. nga am benn niveau. mais euh, toll nañu fu nga xam ne nit bi surtout surtout jeune dafa war a mën a entreprendre. même quand tu à l'école wala ngay dem à l'université war nga mun a am sa benn benn benn benn business. business bi nga war a def. Mhm. bi nga xam ne da nga koy commencer di mhm. expérimenter. Mhm. n'est-ce pas ndànk-ndànk. et y en euh, yi ñu ngi fi. mais il faudrait que loolu tamit ñun dañuy euh, inculquer la loolu. man par exemple en tant que animateur culturel. su nu ma affecté waan ci benn benn commune. li may wax euh, association sportive et culturelle yi euh, vous n'avez pas que le sport à mm-hmm. exploiter mun ngeen par exemple di pare parrainer ñi nga xam ni ay ay étudiants lañu bu mm-hmm. ngeen di parrainer les élèves de primaire wala les élèves de secondaire mm-hmm. ku ci nekk boo jëlee benn élève di ko di ko encadrer bu yàggee mu demal boppam sur le plan culturel également la même chose parce que nit ki il faut que mu wóolu boppam bala ngay wolu sa bopp il est évident que da xam sa bopp kam même mm-hmm. xam sa capacité mm-hmm. xam li nga mënee fi nga mëneewul et cetera mm-hmm. ñeme sa jugement personnel là tu vois mais Sénégal dafa toll foofu parce que booy amatuñu repère xale yi aujourd'hui amatuñu repère je l'ai di quelque part euh, gars yi di <clears throat> dañu toll ci jamono bu nga xam ne jamono lijjanti la pour am xaalis <laughs> mais boo lijjantee ba nga am xaalis te xaalis boobu <laughs> mhm. xamoo naka nga koy mhm. fructifier mhm. déjà y a problème y a problème y a problème <laughs> léegi ñu ne pour nga gaaw am. il faut que nga jàll ci politique bi. <laughs> wala wala wala il faut nga agressé. wala il faut que nga truandé. ah mais ça devient grave mais c'est pas bien. c'est pas bien ça c'est mhm. nag euh, la uray. la uray xam naa ne tey moom la nga rat da nga tàmbali da ko bëgg a rattrapé. <laughs> waaye doo ko rattrapé ndax temps bi daf ñu xooj. maanaam une heure de temps ma ne une heure de doo fi xaabaabal. éducation am na suba. léegi sa réflexion bi la ñuy commencé suba <laughs> dañ ci ko suba. <laughs> voilà ñu nekk suñu njeexantalu émission hmm. mu nekkoon li ñuy jagleel toujours euh, donc wàllu syndicat yi avec euh, donc euh, les parents d'élèves ñu si doon dalal monsieur Guèye di secretaire général bu union nationale des parents <coughs> d'élèves et étudiants hmm. monsieur Guèye ñu bàyyi la donc nga tënk ak hmm. tàggatoo ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan tey ah mais temps bi dafa dafa dafa gaaw. dafa gaaw de ah. dafa gaaw temps bi dafa gaaw madame Sylla temps bi dafa gaaw il faut nga yokkal ñu benn 30 minutes. <laughs> que on aura toute la semaine pour débattre. waaw euh, moi je vous je vous je vous oriente. Mm -hmm. par exemple ci euh, euh, je crois direction la ou kii la. Mhm. Kaospe lañ tudd. Kaospe mhm. Kaospe. Euh, seen rôle. Mm-hmm. c'est d'encadrer les élèves. Mm-hmm. et de et, et de repérer les élèves. il y a des mm-hmm. sociologues foofu ils dépendent du du ministère. Euh, de euh, l'éducation euh, nationale ils sont là au point E. d'accord il y a des sociologues foofu et cetera ñooñu je pense que euh, ci semaine bi ils auront euh, leur mot à dire leur mot à dire alors léegi aussi di lancer appel ci les communes. ak les villes. Mhm. parce que ñoom ñoo am en charge. Mhm. n'est-ce pas euh, les écoles primaires. Mhm. ak les écoles secondaires. pour que ñu gën a impliqué wu. ci gestion wu école yi. parents d'élèves également di lancer appel. au nom de l'UNAPES. pour que ñu gën a jege si. n'est-ce pas euh, association bi comme ça. li ñuy discuter ak orientation yi nga xam ne war nañ ko mën a corroborer mhm. ak texte yi mhm. pour la pour une meilleure gestion mhm. de l'école ben ñu jege si et ñu liggéey ñu jël aussi euh, suñuy responsabilité et surtout que nag de d'élèves yi dañuy am euh, touti poigne et plus ñuy gën a bëri je pense plus ñuy gën a am doole ah plus ñuy gën a mën a imposer li nga xamante ne moom mooy euh, njëriñu suñu ay doom parce que suñuy doom ñi suñuy jarbaat yee dem si école gis nga gis nga aussi appel bi également mhm. moom mooy nañu gën a réfléchir mhm. si philosophie bi président de la République lancé qui mhm. di am mais mais mais moo yore nit. Mhm. quand le président dit que l'école c'est l'âme de la nation. Mhm. moi je pense que ñëpp dañ ko war a approprier. Mhm. di ko doxe di ko waxe et en toute responsabilité. waaw bàyyi euh, yenn xeex yi nga xam ni ay xeex yu inutile la aussi. parce que tirer tirer chaque fois <laughs> le drap. ci sa côté. alors que nous sommes une nation. une mhm. nation une nation. Mhm. nation veut dire quoi. Mhm. yow la man la. keneen keneen keneen mais boo ne état état état état rek. du sotti chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités, ses responsabilités. et les assumer nag. et les assumer d'accord <laughs> monsieur Guèye euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee une heure de temps dafa short. donc euh, madame Sylla euh, on te lance un appel nga yokkoon ñu temps bi de 30 minutes. <laughs> bu ko defee ñu gën a mën a débattre li nga xam ne mooy cas yi. <coughs> tey euh, toujours dans la semaine ñu waxtaanee donc éducation njàng meeg njàngale mi muy euh, l'école de Jules Ferry ak si daara yi aussi ñu si doon dalal euh, monsieur Guèye di secrétaire général union nationale des parents d'élèves et étudiants je pense que dans la semaine aussi dinañ la woo. Mm-hmm. nga participer par téléphone. Ah, ça <laughs> voilà <laughs> parce que toute la semaine c'est l'éducation. <laughs> ci kaw loolu ma leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier aussi donc mami salon bijou di jëlu tey suba ba léegi yaa ngi ma naan moo tax mais aussi euh, Fatima bi nga xamante ne moom moom ma defaral nii ba ma xëy suba teel rek di tàkk di jëlu di apprécier <laughs> e di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun tous les jours ci émission Sunukaay la oreille maa lay tàggul di jëlu maa lay tàggul donc di leen di jox dig daje suba incha allah même heure 10 ba 11 heures ñu nar a continuer toujours ci li nga xamante ne mooy l'éducation dans l'école et les daara